dàq loolu waxat diin xaradoo ñooñu sax nag far nañu jeex ci kaw suuf kuréel boobu di ñakk gëm yàlla ca seen ngëmin yooyee yàlla jeexal na leen ci kaw suuf xabla suuri saafi lu jiitu feeñ ak imaam saafi waxat luhinoo te sunu boroom rëbb na leen ala lisaani sabhina nabiyan rëbb na leen ci làmmiñu juróom-ñaar fukki yonent wa fil hadis nekk na ci hadis bu ci sunu yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne ñoom yéefar yooyu in marido bu dee feebar nañu fala hum bu leen leen seeti yéen jullit yëgam yàlla wa in maatu bu dee faatu nañu fala tashadoohum bu leen fa dem bu leen seedeel dara bu leen fa demit bu leen ànd ca ba bu leen dem ca ñoom ya ñoom yéefar yooyu attaani tombab ñaareel ba mi ngi lay joxoñ yow julit antoomina na nga gëm na ngeen gëm wattu saddixa te ngeen dëggal annahu taala naka yàlla mu kawe ma xala-xala baada mo bind mbooleem jaam ya diggante asamaaw ak suuf nit jinne ak ludul nit jinne ak mboolem li nekk ci diggante asamaaw ak suuf yéen julit yépp na ngeen gëm ne yàlla bind lépp wa afaaluhum na ngeen gëm ne yàlla bind moo dogal seeni jëf te xamoon na ko lu jiitu ñu di ko jëf faw ngeen gëm loolu bam ko bindee dogal ko xam ko jëf ko moom yàlla bu feeñee rek ngeen di doog a xam jëf ja mais fekk na yàlla xamoon na ko lu jiitu ay milliards milliards at yàlla bindoon na ko lu jiitu ay milliards milliards at dañ laa gëmloo loolu yow jullit su ko defee nga gëm ne nit yàllaa ko dogal la nit jëf yàllaa ko dogal waaye nag ba ko dogalee moom sunu borom dafa def ñaari magasin yu mag moom yàlla te ñaari magasin yëpp daa ubbi bunt ya ne la bee féete ndijoor aw yiw dong nga fa ne yow jullit waaxul jëm fa lu la neex dina la fa fekk ci aw yiw ne la bee féete càmmoñ aw ay dong nga fa ne ak musiba yow yéefar boo waaxoo dem ca lu la fa fekk aw ay yaa ko wuti yaa dem daal ne yéen nit ñépp nag jox naa leenam xel ak liberte jox naa leen la nekk ca manga ñaari magasin ya ba ngeen xam ko ku ca baax jubal ca magasin yu baax ya loo fa jële ci lu baax yaa moom waaye bu kenn dem ca magasin bu bon ba ku dëgër bopp dem ca lu bon la loo la ca fekk ci lu bon ya moom te jox naa la sa coobare fu la neex dem ku topp seytaane dem ca lu bon yaa topp seytaane sa coobare bopp ku topp yonent bi dem ca lu baax la yaa topp yenent ba dem ca lu baax la ci sa coobaree bopp kenn ku nekk nag loo fa fekk yaa fa dem yaa ko fekk loolu fekk siw la loolu la nu yàlla xamal yónni nu ay yenent ñu leeral nu loola kon yow julit faw nga gëm loolu kon yàlla wàccoona ak ñun mboolem nit kuy nit yàlla wàccoona ak yow loolu nga war a gëm nag muy jëfe la yàlla bëgg te bàyyi la mu tere xilaafan ak wuute da caa am ci kuréel bi nga xam ne ay yéefar lañu lil ma tasilati te ñu di leen woowe kuréelu mu tasila ñooñu ñoom alxaa'iliina ñooy ña wax ne bi anna laaha naka yàlla taxalaa kowe na xalaxal xabda moo bind jaam ba waaye dañ caa teg lu matadi mooy ñoom dañoo wax ne wal habdu jaam ba yaxluxu afhaluhu mooy bind mooy dogal ay jifam yàlla bokku ca faa uleehi nit ñooñu xilaafun ak wuute feeñ na fii kufrihim ci seen ak weddi waaye ñu weddi yàlla lañu rek ndax waxat nataxal qur'aana yàlla daa ci alxuraan bi takzibihim ci seen ak weddi